jëmal démocratie kanam mais dafay jëmal réew mi fu sore sore par justice dafa nekk sookul bu am am am solo. Mhm. mais ci dialogue bi dañu ci xaw a juum am na ci. Mhm. waxoon naa ko ci entretien bi ma defoon ak yéen. foofu noonu absolument justement dama nga ñëwaat ci loolu. waaw njuumte njuumte am na. parce mhm. que nous nous sentons d'abord investis. Euh, d'un devoir citoyen de veille et d'alerte. pour sensibiliser alerter pousser les mécanismes à réagir. bu fekkee ne dañ ñu invité ci jaloog boobu. Mm-hmm. le président de la moo ñu invité ñun. Mm-hmm. nous avons reçu une invitation en bonne et mm-hmm. madame la ministre des affaires étrangères. maa envoyé benn message laaj ma ndax jot nga sa invitation muy Yacine Fall ma koy remercier euh, donc kon bu ñu teewee foofu ñu xool ne ah mbir yi kat war nañ def joyante par justice du lu ñuy waxtaanee sax si juróom-ñaari fan d'abord. le mal est beaucoup beaucoup plus profond. il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. il ne faut pas mettre les charrues avant les ba mhm. c'est-à-dire njuumte yi am foofu noonu. Mhm. mooy jaloog bi def naa fa juróom ña juróom euh, ñaari fan. Mhm. mais lii di jafe-jafe yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. waxtaanee ñu ko fa daanaka. comme yan comme yan te loolu dénoncé naa ko avec la dernière énergie ñun loolu mooy suñu taxawaay. jubluwuñu ci yàq. Mhm. mais loolu lañ naan critique constructive critique mhm. boo xam ne dafay defar autorité bu ko déggee mhm. wala ñu souligner dana ah kii kat li mu wax xaar ma bàyyee xel lan moo tax mu wax ko benn mooy d'abord balaa ñuy wax justice mbir bi dafa am fu mu tàmbalee mooy si commissariat yi ci lieu de privation et de liberté nit ku am jafe-jafe ak yoon balaa ngay dem fenn maanaam ci commissariat lañ lay njëkk indi balaa ñu lay yóbbu tribunal balaa procureur di la gis foofu la ñuy wax les lieux de privation et de liberté qui sont au nombre de cent vingt au Sénégal Mhm. boo ne lieu de privation et de liberté commissariat de police yi ci la bokk gendarmerie yi ci la bokk mhm. bërëb yi nga xam ne hôpital la yi nga xam ne ñi seen xel naqari mhm. ñooñu caabi daf leen féete ginnaaw ñooñu da nga koy boole ci lim bi kaso yi ñu xam muy kaso traditionnel yi ay rëbës prison mbuur yooyu def siy bokk moo ko def totalu deux cent vingt foofu ñi ñuy jàpp di leen teg loxo foofu la ñuy njëkk a salfaañee seen àq ak seen yeleef ma taxaw ci ci ñaar benn bi mooy li ñuy wax règlement numéro cinq bi mu bi nga xam ne dane bépp doomu aadama bu ñu teg loxo rek. maanaam balaa enquêteur bi sax di àddu say mbir yoon daf ne may nañ la sañ-sañu nga ne ah wowal leen ma sama avocat mu dimbali ma. mais loolu dañ koy salfaañe looluy indi li ñuy wax ay vices de forme ay procédures yoo xam ne dañu koy reprendre ay nullité de procédure. beneen bi si topp mooy amul benn loi boo xam ne wote nañ ko si recommandation yi sax ñun joxe nañ ko ci assises yi amul benn loi. ci lieu de privation yooyu may wax police. ak gendarmerie. Mhm. amul kenn Sénégal ku ñuy teg loxo police wala gendarmerie maanaam añ jot policiers yi jox la ko. Mhm. ndekki jox gendarmerie jox loolu amul fenn. Mhm. alors que ki ñu teg loxo dafa am ay ak ak ay yelleef yoo xam ne li ku li ku dëgëral. mooy bay demee si article onze bu déclaration universelle des droits de l'homme bi nga xam ne moom moo nekk le premier document juridique des droits humains moom mooy wax ci li ñuy wax le principe de présomption d'innocence c'est-à-dire nit bi nga xam ne jàpp nañu ko yoon dafa ne dañu njortu rek ne yow da nga def maanaam tant que épuisé wuñu tous les voies et recours maanaam bu ñu la àttee première instance nga ñaxtu ne neexuma nañ ma àttewaat bu ñu yëpp jeex yoon lim la may lépp jeex tag ba juge bi bañ yeggas cappaandaw bi yoon nee na lu la nit wax boo ko porté plainte ñu jàpp ko parce que yoon nee na ci bëtam yow njort nañ ne ba léegi defoo dara kon kooku dañu war a respecter ay axam ak ay yelleefam est-ce que waruñu woote loi yoo xam ne dañ naan léegi kii dëkk Tamba ñëw Ndakaaru yàlla def nattu ko rek mu fiir benn nit ci tali bi homicide involontaire wala xeet yi ñu jàpp ko alkaati yi jàpp ko yóbbu ko police amu fi yaay amu fi pap moom bu nekkee ci biir violon bi mbokku détenu yi caabi féete ginnaaw ñi dëkk fii seeni i mbokk di leen indil añ ak reer ñoo koy yóbbaale ci lekk boobu. Mhm. est-ce que lekk bi doy na doomu aadama la dafa war a ndékki. Mhm. dafa war a añ dafa war a reer dafa war a mhm. sangu dafa war a nekk ci bërëb boo xam ne. Euh, dafa war a méngoo ak dignité wu doomu aadama ni koy téye parce que nit ki dafa juum ñu ne la peine à ce que l'on une double vocation dañ nekk si benn société boo xam ne. dafa am ay loi ak ay règlement yoo xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp. mi mel ni ci émission bi ñu ne. Mm-hmm. ah émission bi de loi bi mooy portable daal bu sonee ku sa portable sonné teg nañ la daanu ñaari junni. kon de ah, man man maa njëkk a fay ndax man sonné na. <laughs> waaw man maa njëkk a fay. Mm-hmm. léegi loolu loolu lañ wax fii loolu ñun ñëpp dañ ciy tënku man keñ bu ma ko jalgatee damay fay. Mm-hmm. loolu mooy luwaay léegi nag doo am na doomu aadama yoo xam ne yàlla moo bind doomu adama ci mat ak ci matati. ñi baax ci société bi seen taxawaay. muy dimbali ñi nga xam ne dañu réer ñi nga xam ne xamuñu ñi nga xam ne dañu jël yoonu mbon loolu indi ay waare ay dem si prison yi di waar détenu yi ak yooyu kooku dafa juum mhm. ñu ne peine boobu daan boobu ñu koy teg yoon ne dafa am li ñuy wax double vocation ñu ne lan la mhm. nit ki dafa jalgati yoon dafa tux yàmbaa société bi day tere tux yàmbaa dafa sàcc sàcc dañ koy tere dafa violé mhm. violé dañ koy tere ñu ne ñu jàpp ko nëbb ko benn béréb pour yar ko wan ko ne li nga def nii kat yoon daf koy tere mais jubluwuñu ci xotti ormom jubluwuñu ci troxal ko jubluwuñu si xañ ko ay axam bu paree nag ñu réinsérer ko maanaam delloo ko société foofu ci biir dialogue bi maanaam du ñu tëb foofu déggoo fenn ñu wax lieu de privation et de liberté yi. Mhm. règlement numéro 5 nangam maanaam salle ba ma nekkoon dama ko dénoncé Cheikh Bara Ndiaye dem dañ ñëw rek. Mhm. magistrat yi également du ñu ay demi jël. une question mhm. pour Sall balaa ngay dem foofu. Euh, une question pour allez-y allez-y euh, euh, wàllu dans quelles circonstances la ñu permettre par exemple policier di la duma. par exemple yenn saay yi policier dina la dina la dina la wax ba dépassé la. te yow si sa ci sa dafa am nit ñi nga xamee ni. Mhm. par exemple policier mën na la saaga. Mhm. policier mën na la mbaj ci ci ci ci kii bi. Mhm. léegi nag ci yan circonstance ak fan la policier war a mën a jàpp duma la même bu fekkee ne wala est-ce que am na droit duma la par exemple. si ci ci parce que yooyu aussi tamit yu ñu war a jooyanti la da ngay policier ci mën na taxaw ci mbedd bi. nga ànd sa njaboot. wax wax bi nga xamee ni doo mu tu peux pas mën na la sax saaga waxuma ne policier la koy def mais dama def ay cas de figure yenn saa yi sax mën na wax ba si am mu dóor la pes gis nañ ko ci ay TikTok yi yu ñuy jëkk léegi yooyu yow lan est-ce que yooyu booru bokk ci ci ci réforme question la nag. jërëjëf Mamadou Mamadou laaj bi am na solo trop mooy li ma wax ne maanaam dañu il ne faut pas mettre les charrues wax dafa am mhm. solo. Mhm. maanaam balaa ñuy wax tribunal tribunal juge yi ñoo mujjee bu ñu la defee rek lañ le tribunal di door a am ak yow affaire. Mhm. mais li jiitu tribunal waxtaanee ñu ko ci dialogue bi mooy point bi mu soulevé amul benn loi. bu ñu bind noir sur blanc ne sax alkaati am na droit dóor ki nga xam ne caabi daf ko féete ginnaaw muy ci kaso ci mhm. bërëb bu caabi loolu ay ay convention la mhm. contre la mhm. torture même wax nañu sax ne war nañ voter loi boo xam ne dañuy def ci commissariat yi ay caméra de surveillance prison yi pour ñu caabi féete ginnaaw ñu mën leen teg bët loolu ku ku alkaati dóor te mu am ay firnde yu leer na dóor na la alkaati boobu yoon daf koy teg yoon daf koy teg ay doon parce que li protéger doomu aadama bi mooy premier document juridique des droits de l'homme bi xam nga yow da nga njortu rek ne dafa def Mm-hmm. yow kan moo ne la portable bi mm-hmm. nee nañ bi émission bi jeexee Mamadou nee na maa ko jël jàpp mm-hmm. nañ ma bañ demee ba téye ma loxo ma def ñaari fan kii di bale fii ñëw rek téléphone bi sonné ah lan moo xew man de innocent laa téléphone bi feeñ na est ndàmp nañ ma est-ce que setal nañ sama der alors que y a une commission juridictionnelle bu ñu installée à la cour suprême depuis 2008 nga xam ne son travail consiste à procéder à l'indemnisation des victimes de longue détention euh, Ibrahima jàppoo ni aussi lii ce n'est parce que tamit euh, bu ñu fàtte ni non non non non non euh, voilà ce n'est qu'un début dañu woote non cher ami waxtaan xaaral mais maintenant bu fekkee dañu waxtaan xaaral joxe ay proposition parce que Olof Ndiaye nee na ku la dig añ ku la joxee ndékki war nga a xaar añ xam nga cher ami mhm. xam nga j'étais pas seul dans la représentant de la police. Mhm. gendarmerie ñi di génn nañ jël salle devant le ministre de la justice ñu wax ne. mënuñu nangu dialogue bu dol nii am te gendarmerie ñii di téye nit ñi mhm. joxuñu leen kàddu ñu wax mhm. man mi jiite l'une des plus grandes associations au Sénégal reconnue mhm. mais est-ce que waruñu woon jox kàddu moo wax juge yi lan mooy jafe-jafe yi am Sénégal cinq la ñu am Sénégal à jour mooy actuellement li fi nekk cinq cent trente magistrats quatre cent soixante douze greffiers. Mhm. ñoom ñoo am Sénégal les huissiers de justice dañuy tourner autour de soixante dix. Mhm. xam nga xoolee euh, cinq cent trente magistrats. Mhm. ñaari magistrat ñoo am le magistrat debout et le magistrat bii di toog sànq il a évoqué le problème de l'inamovibilité du magistrat boo demee ci article 414 415 da nga ko fay fekk ceci dit que ce magistrat du siège mënoo ko affecté sans pour autant nga yëgal ko ko ay intérimaire lañ il a donc kon dama dama dama dama gis ne maanaam li jiitu li jiitu nga xam ne mooy la vraie problématique la vraie problématique mais c'est les prisons mm-hmm. des générations sont sacrifiées sëñ bi dans les prisons mm-hmm. les conséquences ñu ngi koy ressentir mais dinañ ko sentir quelques d'ici quelques années parce que là y a une montée en puissance de la criminalité en 2016 mmh. 2017 et crimes par arme blanche arme blanche laa la wax de mm-hmm. bakken yu ñu rey ci ngànnaay Mm-hmm. enregistré nañ ko fii ci réew Sénégal loolu lan mooy conséquence bi mooy longu longu longu de longu de longu détention yi mm-hmm. administration pénitentiaire dénoncé naa que le directeur général des prisons mi ngi woon ci biir salle bi ma nekk mm-hmm. moom bi mu fa nekkee quatre minutes la jël lu doon ni directeur général des prisons maanaam les magistrats ne sont pas des moi je ne considère pas les les comme des dieux. par les magistrats bu ñu demee école. ñoom ak les greffiers ñoo bokk deux ans la ñuy def greffier def deux ans. mais magistrat yi si seen formation ñoom. dañ leen di gëmloo seen i professeur dañ naan leen yéen yemoo leen ak nit ñi ñoom dañ koy incarner di ko doxee ba les magistrats ici au Sénégal on les considère comme des demi-dieux moi je ne les considère ne cest à mhm. boo dem. muy santé éducation foo dem am na mhm. ñuy def seen liggéey convenablement comme suñu doyen bi combien d'années la def ci secteur am. Mhm. plus de vingt ans. Mamadou mi ku ko xamul seen plateau yi aussi di nga ko laaj. c'est des gens corrects. c' est des gens ki ku xam-xam ci ci domaine am j' j'étais là j'ai pas pipé bon parce que dama leen doon déglu avec une attention particulière boo toogee ak ay borom xam-xam ñuy waxtaan. Mhm. da nga naan teg nga jàng ci li ñuy ci li ñuy wax. donc ceci veut dire que réew mi. Mhm. am nañ fi nit ñu am xam-xam. Mhm. mais secteur boo dem tamit am na ñoo xam ne dañuy gàkkal liggéey. ce qui s' est passé. deux mille vingt et un ba mais est-ce que il faut que ñu waxante dëgg tamit bu dee dañ ne mm-hmm. assise de la les magistrats yi toog. Mm-hmm. man wax naa leen que salle bi de man c'est pas dama ñëw fii si plateau yéen def naa fa ak yéen entretien. évidemment la salle magistrats toog nañ ni ma ko mm-hmm. waxee nii changé wu ci virgule. ñoom les magistrats foog ñu assumer. lan mooy seen responsabilité ci li xew. il faut que ñu xoolante ci bët dañ ne dañ bëgg justice ñu xoolante ci bët ñu waxante dëgg lan mooy paaru magistrat yi. mais li xew ci réew mi moo xam ne le président de la république dafa toog man. am na yoo xam ne bu xewee le ministre de la justice daf may woo téléphone. Mm-hmm. yëgal ba ko balaa ñuy jël benn dogal mais loolu mooy l'immixtion de l'exécutif dans les judiciaires. évidemment xam nga réew mi yàlla na ma yàlla baal de. Mm-hmm. mais Sénégal dafa bëri naa fekk nag. Mm-hmm. Sénégal dafa bëri nit ñu soxor. gis nga bu dee dañ jug pour defar rek ñun ñëpp. dañ fi nekk au nom des intérêts supérieurs de la nation. bu dee dañ ne dañ jug pour defar rek defar boobu. waruñu raay wax ji maslaa ko. maanaam war a xoolante ci gis nga magistrat yi def nañ colloque. 2018 man j'étais invité boobu Souleymane Teliko moo doon le président de l'union des magistrats def nañ fa lël bind nañ problème bépp bu justice am. ñoom bind nañ ko si géej kon ñoom seeni problème xam nañ ko. mais est-ce que problème wu kaso yi est-ce que mës nañ def assise si prison yi ba xam dëgg-dëgg ne prison yi. jamono ji may waxee yow am na 263 ñu am yaay am pap juddoo ci réew mi. Mhm. deux cent soixante trois personnes laa wax. Mhm. si salle bi laa ko waxee les mhm. magistrats ñu ngi foon l' administration pénitentiaire ñu ngi foon. ñoo xam ne seen i dossier dafa réer. en situation appelant ñoo xam ne dañ def appel depuis 2016. ki ma si mën a tudd mooy Ndiaga Matar Gueye nekk chambre 3 prison camp pénal bu Dakar exemple laa joxe de. xam nga da ngay joxe firnde yi leer. mais ñooñu ndax ñooñu dañuy toog def ay assis ñu toog prison rek. prison di xaar. depuis 2016. ñii seen xel naxari ci kaso bi nga xam ne dañuy simmeeku comme ni leen seen yaay jure woon ma fekk leen benn. wër naa 37 prisons yi nekk Sénégal yëpp. jigéen ñi wan na lor ñu ëmba est-ce que ko ëmb war nañ ko jàpp. est-ce que xale bu amagul fukki at ak juróom-ñett. est-ce que kooku place am prison la. Mhm. mais kooku place am centre de redressement la pour mineur sëñ bi. Mhm. bu dee dañu bëgg réew mi jag. foog ñu jël suñu courage à deux mains ñu xoolante ci ay bët. ñu waxante dëgg bu mu bañ nekk ay attaque de personne ay diwu juge bi wala mais ñu xool magistrat xamante nañ seen biir de. nous avons des magistrats intègres dans ce pays intègres juge yoo xam ne ay ponkalu juge lañ. le ministre de la justice lan moo tax ñu def ko ministre de la c'est pas man bi ma koy xam boobu kaaf bu tribunal bu Ndakaar bi laa ko xamee ci Lamine Coulibaly. ok dans quelles xamante. boobu procureur la mooy CAF bi ñi nga xam ne ñoo doon placé ñoo doon placé mandat de dépôt mhm. muy def liggéeyam convenable convenablement parce que mhm. lii tax ñun ñu am ñu mën a xam juge yi kan mooy kan mhm. dama mësa ne juge ku leen bëgg xam dangay dem prison nga laajte nga laaj leen prisonnier parce que ñoom la ñuy jëflanteel boo demee kaso prisonniers yi dinañ la wax yan juge ñooy def seen liggéey bu baax ak ñan ñoo ko dul def bu baax ndax dañu xam juge yi fi bëriwuñu cinq cent trente donc quatre cent et quelques ñoo siy exercer fonction bi ñeneen ñi ñi ngi ay si ministères yi ay nangam ak nangam. Mm, euh, ñu xam nañ leen bu baax. donc kon xamante nañu bu baax. dans ce justement aussi le fait qu'il aussi peu pour le Sénégal nekkul problème selon. waaw c'est-à-dire. Mhm. gis nga man sëñ bi man samay wax raayuma ko man li ma lay wax nii si dialogue bi magistrat yi ñu ngi toog. Mhm. le ministre de la justice bi ñu toog. Mhm. le directeur de cabinet bu président mi ngi toog Cheikh Bara Ndiaye def gis bi ñu ngi toog. man dama wax ne magistrat yi nañu assumer seen responsabilité benn neel benn. nañu ko assumer seen respons si li xew ci réew bi mm-hmm. ma ne leen assise bi du assise u yi mm-hmm. man du ko nangu tey du ko nangu suba mu nekk loo xam ne mm-hmm. magistrat yi dañ siy régler seen i problème bopp seen avancement bay dem ba daan ay âge yu 68 ans retraite ak 70 ans fac droit ñaata mètre dëkk bi dañu waxante dëgg waaye sëñ bi ñun ootew ñu ñu assise jam naajo pour ñu jox parole bi yëpp les magistrats moomu dëkk bi laa la wax Mm-hmm. di servir le peuple la justice est rendue au nom du peuple man ju man xanaa du ma citoyen bu ñàkk fayda boo xam ne man justice mm-hmm. bu le juge est soumis est soumis à l'autorité des textes mais man ñàkkuma fayda ñàkk fayda boo xam ab juge dafay rendre décision man si sama turban mm-hmm. te man kooku du ma ko critiquer du ma si am sama droit de regard man du ma citoyen bu bu ñàkk fayda kon magistrat yi ñu dina di contrôler mhm. il faut que justice ñu di ko critiquer loolu mooy doxal mbir bi mhm. magistrat yi xam ne am na ñu leen di bàyyi xel bu ñu mhm. fóotee ñu weer leen ci télé bi magistrat yi mais Sénégal ñaata nit ñoo fi ne 17 millions de Sénégalais ngeen génne école si seen formation ñu ne leen Sénégalais buy dox yéen a ko gën loolu man nanguwuma lool man benn juge gënuma amul juge bu ma gën fii sa je ne veux pas l'accepter parce que des êtres man ci ñoom mu am ñu baax ñoo xam ne bu ma demee seen bureau dañuy téye seen kaamil di jàng bu julli jotee ñu teg seen der boo leen joxee dossier ñu xool seen diggante ak seen borom barke alxuraanul karim dañuy teg seen diggante ak seen borom àtte li nga xam ne moom la euh, moom la droit wax pare nañ si gis nañ fi dans un passé récent benn juge bu ne dans les région benn sëriñ lañ jàpp taalibeem mhm. juge bi bëgg ko yóbbu kaso sëriñ bi woo ministre de la justice bi fi nekkoon. ministre bi woo juge bi ne ko bàyyil taalibe sëriñ bi. juge bi ne ko ma ko bàyyi loolu du samay wax mi ngi ci internet bi. mais juge bi bi mu yóbboo taalibe sëriñ bi kaso lan la def dañ ko relever de ses fonctions alors que le ministre de la justice warul violer le le principe de l'inamovibilité du magistrat. dañ ko yóbbu sànni ko feneen. non non xam nga xam nga dañ dañ leen ëpp doole. non xam nga li la. Mhm. di remettre cour suprême devant ses responsabilités mhm. gis nga réew mi ah mhm. réew mi bu réew mi yàlla defal nañu terang goo xam ne terang goo xam ne barke Seydina Mohamed amul benn réew bu ko am si sous région bi diine ji fi nekk suñu mag ñu baax ñi nga xam dañu duggoon xalwa doon ñaan laxasaayu Sénégal boo fi dudd sax da xam ne réew mi am na lu fi nekk mu am nag ay boroom xam-xam réew mi ak bëri ay borom xam-xam kii rek borom xam-xam la ñaata at la def ci liggéeyam. voilà maintenant ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen aussi avec votre association na ay propositions yoo xamante ni keroog defoon ngeen ko devant les caméras te propositions yooyu dama bëggoon nga teg ko sur la table comme ça ñu waxtaanee ko. waa xam nga xam nga propositions yi. Mhm. dañ def euh, trente poñ yoo xam ne. Mhm. ba ma demee ba am lu ma naqari si salle bi. Mhm. man dama dem si facilitateur bi Babacar Gueye. ma ne ko ah. président yow yaa yow la président de la teg mbir yi si si sa loxo yaay facilitateur. Mhm. te bëgguma nag suba nga dégg ma ci presse war man samay xeer laa yor ak samay missile. Mhm. te sama waay nga. ma ne ko nag ñun suñ ñun dañu def ay jours liggéey. Mhm. parce que dañ ñu woo fii pour ñu suñu xam-xam bi ñu am ci kaso ba réew mi ñu nangul ñu ko. Mhm. comme ñun nanguwuñu si salle bi magistrat yi nanguwuñu ñu wax dañu def favoritisme seen i mbokku magistrat la ñuy jox parole trente minutes. Mhm. ñun ñu tënk bi ñu gisee loolu dañu jël suñuy matuwaay. ne ñun nag dañuy bind trente points signé ko en bonne et due forme. c'est une association reconnue. ñu def premier point bi pour mu tënk ko rek pour temps bañ a dem. ñu ne mooy dañuy voté benn loi boo xam ne dafay limiter capacité d'accueil yi ci prison ñu ne kaso kaso bi 500 détenus la war a jël loi bi nee na 500 la war a jël bu Tamba 1000 1000 kaso bu feesee procureur dootu fa dugal nit par les pouvoirs du procureur sont exorbitants. Mhm. loolu benn la ñu ne ñaar. Mhm. ñu ne kaso rëbës boobu léegi ñi ngi wax ñu di ko jaay lan moo tax ñuy jaay rëbës. Mhm. lan moo tax ñu koy délocaliser rëbës. dañu ko war a classer patrimoine mondial de l'UNESCO à l'instar des grandes démocraties occidentales pour mu mën a marquer l'histoire de l'enfermement en Afrique parce que à la prison de Rebeuss mais icône Sénégal ñi ñu gën a ràññee ci politique Mhm. figure ay Serigne Cheikh Al Maktoum Sidi Lamine Niass Ablaye Wade Idriss Seck mhm. Mhm. mais est ce que du ne xale yi étudiants yi suba buñ ko defee musée pénitentiaire ñu ne passe deux mille francs la maanaam néeg ya nam mel noonu lañ koy bàyyi mu nekk musée mais imaginez que buñ ne musée ni sénégalais yi war a màbb war a gisal seen bopp ni prison bi nii la mel ñaata lañ ciy récolté ci xaalis ñu def ko passe deux mille francs buñ ñëwee ñu mel ni ay ñun nga xam ne xam nañu kaso ay ancien garde di leen guider fii mooy chambre une fii deux cent nit ñoo fi nekkoon seen douche ngi Ablaye Wade fii la doon tëdd jagan bi nii lañ ko doon séddalee mhm. mutinerie bi mu fi amee ñii ñoo dee mais c'est passionnant da leen di captiver mhm. ñu xam ne fii dret de fi tuuru ay gor dañ fi souffrir mhm. mooy deuxième point bi ñu def ko musée pénitentiaire à l'instar des grandes démocraties occidentales ñu ne troisième point bi ñi ngi wax rek boobu léegi mais dañuy dem si ay solutions yu dëgër ñu ne Sénégal am na deux millions d'hectares de terre cultivable man wër naa réew mi yëpp di deux millions hmm. suuf boo xam ne loo fi bay mu sax même bale blé bi ñu doon werante naan hmm. boo ko fi bayee du sax ab sénégalais expérimenté na ko ba ñu waree ko journal ça mais ñaata prisonnier lañu am sëñ bi douze mille cinq cent xale la ñu am ci kaso ñu ne ñaata at lañu am hmm. ñu ne ñi ngi am ñaar fukki at jàpp mhm. fanweeri at ak juróom-ñaar trente cinq mhm. ñu ne lan lañ def ñu ne yàmbaa lañ leen jàppe parce que ndóol lañ ne di ko jaay ba ñu jàpp leen. Mhm. ñu ne ñenn ñi ay jigéen lañ ñu tooñ leen ñu ëmb ñu doon jéem a yàq doom ju ñu jàpp leen. ñu ne yenn xale yi ay jël portable jël ginaaru jàmbur xaru jàmbur. ñu ne ñooñu nañ am ñuñ ci récupérer ñëpp mënuñu baax. ñu ne kaso yi dañuy def waxtaan bu yaatu ak administration pénitentiaire bi nga xam ne ñoom ñooy sàmm xale yi. Mhm. ñu ne xale yi dañ leen di tànn suivant ay critères bien définis. Mhm. ñu ne dañuy tànn ñaata détenu ñu ne dañuy tànn quatre mille cinq cent prisonniers. si mhm. tànneef bi ki nga xam ne dañ ko jàppe woon quatre kilos yàmba. juge bi ne tëj naa la cinq ans. léegi tëdd na trois ans si kaso bi yambaa lañ ko jàppe woon mu dese ko ñaari at. mais kooku ndax xel nangu na nga boole ko ci tànneef boobu yóbbu ko mu bay muy daw du daw. parce que day def ci boppam ne. juge de l' application des peines dina ñëw wàññil ma 6 mois. Mhm. dina def ci boppam ne bu ma bayee naa am xaalis. Mhm. dina def ci boppam ne fi may bayee dañ fiy def benn jardin boo xam ne chaque samedi. Mhm. ñu indil leen seen i jabar seen i mbokk. ñu ñu fo ak ñoom avantage yooyu bu ko amee. ba pare mm-hmm. day am xaalis loolu boo demee ci décret 362 bu 4 mille 2001. Mm-hmm. relatif au procédures d'exécution d'aménagement des peines et des sanctions pénales. Mm-hmm. qui régit le règlement des établissements pénitentiaires dafa ne bépp détenu bu ñuy liggéeyloo dañ la war a fay ay koppar. mais loolu boobaa noo koy organiser dañuy xool 37 prisons la ñu am ñu ne ci biir réew mi. dañuy jël kaso bu mel ni Ndar. kasu Louga kasu Kaffrine kasu Gossas kasu bu ne ñu jox la vingt hectares suuf ñoom seen biir sax concurrence lay doon directeur prison bu ne doo bëgg a des ginnaaw si mbay mi groupe bu détenu dañ naan ñoo dàq bay suñuy morom ñu ñu defal la ne ñii mboq la bay mhm. ñii gerte la bay mais xam nga xam nga détenu bu ne ñaata la nguur gi di ñàkk ci moom par bés mhm. ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñetti ak ñetti dërëm ba 2014 ration wu détenu bi nga nekkoon ñu def ci ay jéego ba mu nekk ñaar téeméer ak ñaar fukk ak fukki dërëm si xa détenu boo xam ne yaa koy jox courant mu yàq ndox di sangu suba ngoon di dam yee si kaso bi di bëri amuñu benn activité naan ataaye seen heure tëdd jot amuñu benn activité parce que juróomi détenu yoo jël juróom yoo jël trois yi ay chômeur lañ ci biir kaso bi defuñu dara. ñoo mhm. ñooñu nga poussé leen ñu tàggat leen ci liggéey ba bu ñu tàmmee génne dañ koy tàmm léegi ñooñu campagne boobu xam nga nuñ ko tuddee. Mhm. mooy troisième point ñu ne ñi ngi koy tuddee document boobu campagne agricole challenger de l' administration pénitentiaire kooku keroog bi ma demee ci ministre de la justice biroom waxuma Ousmane Diagne ministre boo xam ne bëgguma ko tudda document boo xam ne presque ay ay ay quatre-vingt et quelques la maanaam li tax bëgguma ko tudd dama xam ne liggéey boobu ñu ñu def ko nga xam ne association bi dix ans ëpp na ko. kenn mësuma financé mësuma lekk xaalisu dërëm je yàgg naa ko wax ci plateau sénégalais yi da ngay leeral. ma wër 37 prisons yi Sénégal man si samay moyens sama xaalis. nga xam ne bi ma koy wax dans la salle l' administration pénitentiaire mi ngi foofu ndax ñoom ñoo jox këyit gi may duggee ci prison yi. fay ku mën a defar ay projet ñu jox ko suñu xam-xam defar ko. ba yaakaar ne lii mooy saafara ma jox ko ministre bi dafa ne nii xool ah mais Sall ça c' est bien oui je te loolu mooy li saafaroon problème bu kaso yi. léegi loolu jàll nañ ñu ne quatrième point bi mooy dañuy tabax juróomi kaso. yoo xam ne ay prison à vocation de réinsertion sociale. par administration pénitentiaire ñaari mbir lañ leen dénk dañ ne leen fexe leen ba détenu yi bu ñu rëcc. mais ñaareel bi mooy tàggat leen leen defal leen leen réinsertion sociale ñu tabax juróomi kaso yoo xam ne. à vocation réinsertion la nga xam ne kaso yooyu day am atelier arminion atelier menuisier atelier plomberie dañuy def sax ay accord de partenariat ak suñu doyen. Mhm. xale yu bëgg affaire santé ay Mamadou am nañu xam-xam ñu xool nuñ ci mën